délégation bi Sénégal dina am incha allahu rabbi délégation bi nga xam ni euh, gouvernement bi moo koy jël en charge et je précise que y a des particuliers yoo xam ni dañu inscrire ci plateforme FIFA yi jëndal seen bopp billet mën naa ne réserver seen bopp defal lépp seen bopp. au Sénégal benn partenaire la FIFA agréé nga xam ni moo am euh, agrément pour dem Qatar def ay réservation hôtel def mën naa lépp ay carte xaya yi nga xam ni gouvernement bay koy émettre ñun benn partenaire la ñu am ak waa fédération moo ñu defal lépp donc kooku nag même ay particulier mën nañ ko saisir je dois dire que j'ai même des collègues ministres yoo xam ne bëgg nañ dem wala bëgg euh, yóbbu ay nit ci kooku moom laa leen boole ndax gouvernement bi li ci nekk mooy mënul yóbbu ñëpp donc kooku aussi nit ñi mën nañu am contagam ñi nga xam ne dañuy dem am na agrément FIFA lu mu def pour le compte FIFA da koy valider ak gouvernement Qatar ndax dëkk la boo xam ni du n'importe qui nañ fay duggee du n'importe comment c'est organisé et la coupe du monde est organisée par la FIFA c'est un pays qui abrite qui accueille mais c'est par la FIFA mais également FIFA daf ci collaborer ak pays bi ñoom ñu d'accord ci ab cahier de charge te nan lañ koy doxale loolu lépp aussi dafay am solo ngeen xam ko mais délégation Sénégal bi comme ni ma leen ko waxee sànq mun nañ ni trois cent 327 personnes lay doon incha allah donc pour les joueurs wax nañ ko 26 joueurs la te dégg ngeen ñu ni l'entraîneur publie na pré-liste te loolu 26 joueurs la ñuy retenir au finish ak 29 membres de l'encadrement technique ak 59 officiels donc euh, ak invité de l'État beneen bi mooy les 52 membres des familles des joueurs ndax joueur bu nekk. deux membre de sa famille lañu koy jëlal cinquante cent cinquante supporters wax naa leen quatre vingt ou douzième gaynde yi xam naa ñoom ñu ngi xaaju ndax nee nañu loolu moom tuuti na trop mais nee naa leen coupe du monde bi bokk ak yeneen coupe du monde yi même su su doon Europe peut-être dinañ xam mais bii c'est un wax naa leen dëkk bi ni mu mel configuration bi permettrul FIFA dafa limiter les quotas quota bu nekk pays bu ne dañ la jox un quota bu donc kenn mënu ko dépasser. donc ba tax na kon loolu moo tax nombre yëpp lañ réduire donc quatre vingt le douzième gaynde am Ale Casa ñu jox ko quarante ak 30 yoo xam ni waa ASC Lebu Gila bu Rufisque les journalistes en principe c'est 55 bon ça avec euh, naturellement seen président loolu la ñu tënk moom la ma wax ñun dañuy noter su ngeen nekkee su ko ëppee aussi amul problème mais en tout cas ñun xam leen ni pour les journalistes subvention bi nga xam ne ministère bi da leen ko doon jox yokku na ko donc ça wax naa ci tâche bi léegi rek ba jox ko vraiment li nga xam ne moom lañu leen di accompagner mooy supplément bi ndax xam nañ ne conditions yi ngeen doon dundee su doon Europe ak Afrique fële mooy gën a mm, complexe waaw donc ba tax na kon bu mérité d'être euh, mieux accompagné donc euh, ba tax na daal délégation bi incha allah noonu lay tëddee dem nañu nag Qatar sécuriser nañu li site d' yi mooy loolu mooy gën a complexe ci coupe du monde bi mooy fu nit ñi di dëkk beneen bi aussi nee naa waa douzième gaynde li ngeen doon def di togg seen i ceebu jën seen i yooyu moom euh, loolu moom amu fa donc loolu moom di ngeen xam ni il faut ñu organiser wu ndax ay ay site la yoo xam ne amul waañ bu ñu nuñ ko mën a waxee ko mun la am arrière cour wala ngay togg ay matt yooyu c' est pays boo xam ne loolu amul mais nee naa leen sénégalais moom surtout fu mu nekk te lekkul ceebu jën mën na ko perturber mais dinañ organiser wu ñoom seen biir ak la communauté sénégalaise surtout ña fa nekk ak ambassadeur bi pour xool nan la ñuy def ba sénégalais yi nekk foofu mën leen accompagner ci seen restauration ndax ñoom loolu lañ tàmm mais sinon les officiels et autres ñoom ñëpp ci ay hôtel la ñuy nekk de même que la presse aussi yéen di ngeen débrouiller wu xool nan ngeen di restaurer wu